ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, doyen des juges bi leen war a déglu les yeux dans les yeux ni maanaam dañuy jàkkaarloo euh, ku ci nekk xool sa morom ci gët waxanteeg moom li nga xam ni moom lañuy xaar muy lan la vérité mooy dëgg bi nga lawaay nañu ko indi lan moo xewoon dëgg ci salon Ndeye Khady Ndiaye laaj la boo xam ne tukkee na ci yéenekaay bi di tribune Adji Sarr moom nee na en tout cas moom pare na noppi na euh, ngir boobule confrontation yeneen yéenekaay yi tamit dellu si nañu ci boobu boobule mot muy vérité vérité l'heure de vérité yéenekaay bi di laas nee na daal confrontation la diggante Ousmane Sonko ak Adji saar euh, fi ñu toll nii nag jamono yi waxante dëgg wala wax dëgg euh, moom moo fi nekk Adji Sarr nag direct news di xam ne daal non moom pare na waaye nag. weesu na sax pare ndax fi toll nii li mu def mooy dafay réaliser lii di rêve réaliser son rêve mooy lii laa bëggoon moom laa doon gént boobu ba léegi tey nag dinañ ko am muy boobu lay confrontation nee daal bëggul lenn lu dul procès euh, de euh, li nga xam ne moom mooy dëgg feeñ loolu la Adji Sarr doon wax bu fekkee ni euh, man maa tooñ nañu ma teg daan yi nga xamee ni war nañ ma ko teg bu fekkee ni nag Ousmane Sonko moom mooy fautif na fay te nañu ko teg li nga xam ne moom lañ ko war a teg ndax li mu def yëpp ci wàllu euh, lu soxor wala lu bon euh, loolu la en tout cas ex masseuse boobu wax euh, ñee nag ni complot politique la loolu la Ousmane Sonko mu sox ci wàllu woowu ndax bile yoon tamit dafay bañ a tontu li nga xam ni moom mooy ay laaj yu tukkee ci magistrat bi loolu en tout cas laaj la boo xamee ni samp na acte deux la en tout cas ci yéenekaay bi di bees na daal confrontation Sonko Adji Sarr bi nii ni wax ni kii di Ousmane Sonko moom li wóor mooy dina ko teewee euh, témoignage nag euh, génne nañu ko ci euh, ki nga xam ni moom moo leen war a dalal di Omar am Diallo mi nga xam ne moom mooy doyen des juges ci li nga xam ne moom mooy boobule procès yéenekaay bi nag wax na tamit ci Adji Sarr mi nga xam ni démb laata procès bi wala laata li nga xam ni moom mooy jàkkaarloom ak Ousmane Sonko démb dafa doxantu ji woon ba fi nga xam ne moom mooy ca place de la nation wala millénaire la ci wax moom Adji Sarr dafa demoon daal euh, ñu invité ko woon ci benn euh, forum boo xam ne daal dañ ko tuddee ces jours d' activisme euh, ñi ko doon amal di ay soxna doon xam ne daal ni d' accord ñu ci li ñuy fitna bi ñuy teg yenn ci ay jigéen moom nag s'est senti concerné ci yéenekaay bi di lii quotidien li mu wax mu dem nag def benn apparition publique nee na daal ni moom noppi na ci yéenekaay bi bu léegi ñu wax sànq ci suñu naataango bi di Pape Alé ñu jàppoon ko ci wàllug euh, divulgation secret défense Pape Alé Niang nag euh, ajuma incha allah lañu ko war a déglu di ñaan suñu borom nag euh, mu génne ko ci jafe-jafe yooyu nga xamee ni nekk na ci noonu la ko yéenekaay bi waxee leneen lu soxal beneen xibaar wala yeneen i xibaar mooy fu ci benn ci Rufisque nag lii sànq ñu ngi koy waxtaanee muy libération. nee na daal deux mille vingt et gestion wu mairie bu Rufisque moom coow lañ ko mën a woo coow li mooy bambula bambula mooy daal suñu toll ni euh, lu leen neex lañ def ci lu soxal mbirub ay fournisseur mhm. fournisseurs yi nag dem ba nekk ab cartel bu ñu wax cartel nag dañuy wax ay cartel de Medellin ay mbirum ay euh, ñoo xamee ni ay euh, ay mafiosi yi la ñu yoo xamee ni dañu yore seen alal yore seen i euh, ñu bari ñoo xamee ne dañuy liggéey ak ñoom nee ñu c'est exactement la même chose nag fële ca Rufisque libération loolu la wax nee nañ ci wàllu texte yi dañu ko violé nu mu leen neexee kii di maire bu fa nekkoon di Mame Omar Mané moom moo nekkoon en même temps président commission des marché Euh, ci loo xamee ni yow mënoo maanaam nekk maire nekk président des commissions de marchés maanaam man maire bi euh, marché am na man maay président bi man may tànn ku ma neex mën naa tànn sama bopp loolu daal la ko l'ARM ARMP euh, xam ne ci yéenekaay bi Libération Sow entreprise commerciale ak Gama construction et travaux publics ñoom rek ci loo xamee ni kenn xamul fu ñu ko jëlee ak ci lëndëm boo xamee ni lëndëm këris lañ ko mën a waxee lu tollook ci téeméer yoo jël juróom-ñeent fukk juróom-ñett fukk ak ñeent di 84 pour cent marché auditeurs yi ñoom ñaar daal ñoom ñoo ko seddoo ci loo xam ni kenn xamul fan lañ ko jëlee nan lañ def ba ñu jot ci ak yooyu loolu yëpp yéenekaay bi dellu si na ci ak lu soxal poste de santé travaux de pavage neneen euh, daal ni loolu yëpp wax nañu ko waaye mosuñoo gis fouraas amul leen loo xam ne liggéey nañu ko. ñoo feeñ rek waaye. waaw bu ñu defoon yeneen maire yi ci des. non nee naa la 557 collectivités yi. en tout cas loolu la loolu la yéenekaay bi di di libération bu leen gëstoo kay moom. 550 xëy fësal alors leneen loo xamante tamit ba bari na coow muy ci lu soxal euh, li xewoon fële ca assemblée nationale Sud Quotidien moom dellusi na ci violence physique euh, ci kaw député bii di Amy Ndiaye Ndibi euh, ñu ne nag ni am na jamono ji ñoo xam ñu ngi koy jàppale di ay bouclier ci wàll boobu nag.

dafa ñaaw moom euh, Vox Populi euh, di sàkku nag na yoon def liggéeyam ci wàll woowu te ak lu mu mën a demee ku tooñ ku tooñul ñoom li ñuy sàkku daal mooy nii am na loo xamee ni kenn mënu ko seetaan te kenn mënu ko nangu nga di ab soxna boo xam ne dañ koy dóor ak euh, anam yi ñu ko dóoree Ligue sénégalaise des droits de l'homme moom daal nee na ni tension feeñ na crispation tamit am na ci wàllu acteur politiques yi te lu ñu jàpp mooy ni ëllëg xam ñu nu muy demee waaye daal euh, jotu ñu ci lu lu rafet ci wàllu transport euh, lu soxal transport aérien le quotidien le soleil moom dellu si na ci compagnie nationale transport aérien Air Sénégal daañu ko defaraat redressement lañ koy yoxal plan de redressement euh, ministre des transports aériens ci kanamu député yi dana daal ni compagnie bi li wóor mooy nii dina suqalikuwaat dina xaw a leeraat au pire des cas en deux mille vingt cinq deux mille vingt deux lañ nekk di maanaam may na boppam fii trois ans yoo xam ni day ñëw seet nañu tëggaate Air Sénégal ba nga xamee ni li ñuy sàkku ci moom euh, ci wàllu rentabilité di maanaam xaalis bi ci dugg yooyu euh, dina ci fenn euh, Dakar su mu wax ci beneen transport muy transport maritime ak conférence des Nations Unies ci commerce ak développement di CNUSED ñu def benn étude ci wàllu transport maritime nee nag ni fële ca port autonome de Dakar Euh, am na loo xamee ni xawoon na cee ñaaw ak loo xamee ni dafa taxoon ba nit ñi xawoon cee ñaaw njort waaye fi ñu toll nii directeur général bi di Mountaga Sy mën a jàpp ni perspective yu euh, leer daal yu baax daal euh, dina ci am ci wàllu woowu projet wu département am aéroports régionaux Air Sénégal ANACIM Doudou Ka nag indi na ci ay leeral ci yéenekaay bi di l'info ñu wax ci wàllu tàggat yaram ak euh, les échos les échos nag euh, peut-être avant tàggat yaram bi sax wax nañ ci wàllu chasse à l'homme boobu. Hmm. jàpp leen di dañu ne ñaari député yooyu ñoo xamee ni ñoom ñoo dooroon euh, Abi Ndiaye Ami Ndiaye Ndibi ne nag di fi ñu toll nii ñu ngi am ay négociations tractations souterraines yoo xamee ni mu ngi am yéenekaay bi les échos daal loolu wax ne ni masata Samb ak Mamadou Niang ba léegi gisuñu leen dik jël ay moyens yu am solo ngir mën leen a localiser maître Babacar Cissé di avocat wu Amy Ndiaye euh, déposé na plainte démb ci kanam procureur Lamine Thiam di président bu groupe parlementaire euh, bu euh, parti démocratique sénégalais wàllu ak yooyu mm. nee na nag ne am na ay tractation parlement CEDEAO ni mu ko waxee woon sànq ne nag na justice def liggéeyam waaye jàpp leen tamit ni ci xibaar boo xam ne am na journaux yu ko bindagul ne ñaar ñooñu di député yi Massata Samb ak Mamadou Niang neen ku ci nekk da génne yow tamit nu ñuy woowee certificat médical kenn ki incapacité de travail temporaire muy ITT huit jours kenn ki mbéj keneen ki nga xam ne moo këdd mais am na ITT wu vingt et un jours euh, laaj bi mooy. mais ñoom que jot nañ ay convocation bi ah bon ñoom moo tax gisaguñ leen parce que dañoo am. ñu ngi wax dégg nga leen di seet. alors jox convocation si comme bonjour convocation mu jox leen ko. ah waaw quoi parce que moom moo moom moo kii bon loolu c'est peut-être juriste yi ak ñu xam règlement intérieur assemblée nationale dañ ci mën a àddu ñu ngi doon wax ci wàllug tàggat yaram euh, très rapidement ak les échos euh, El Hadj Diouf euh, moom nag yëkkati na kàddu di. Euh, defendre Aliou Cissé nee na nag euh, bu yaboo nit ñi bañ wut euh, koo xamee ne dañ koy bëgg a jël mbir mi rek gàll ko ko ne moom moo tax ba affaire yi baaxul wala moom moo tax ba Sénégal war a ñibbisee ak yooyu li xewoon du fautu coach bi coach bi def na lu mën moom la El Hadj Diouf wax li footballeur koo xamee ni moom it amoon na li ñu wooyee c'est c'est moment de gloire euh, ci wàllug sport boobu tamit donc euh, jàppale ni am na ay lacunes yu bari yoo xam ne gis nañu ko yéenekaay bi di Walf Quotidien ci la dellu si ci parcours am yépp bu équipe nationale bu Sénégal euh, lacunes yooyu nga xam ne nag moom moo tax ba gaynde Sénégal yi ñibbi si peut-être prématurément selon certains logiquement selon d'autres défense boo xamee ni daanaka kenn gisu leen kenn xamul si lu ne SOS si c'est nag lu muy lu muy wut mooy serial killer ko xamee ni Euh, surface de réparation bu ci yoree bal moom bii rek la ciy gis moom la soxla te moom lay wut euh, ñaari flop nag wax nañ ko ci wàllu tournoi bi euh, jàppaleen daal li gaynde Sénégal yi tey jii di talaata ci la ñu war a ñibbisi ci réewum Sénégal ndax ñeen ñi dañuy jël seen avion continuer ba seen peut-être seen i club wala yooyu loolu laaj la buy sampu stade nag moom dellu si na ci fu mu amee lu ñaaw wala loo xamee ni dañ ko mën a wax ne ni des na am na lu baax tamit mooy les grandes satisfactions euh, noonu la ko yéenekaay bi euh, xëyee fësal wax ci ku ci mel ni Mendy Koulibaly Ismaïla Sarr euh, dañu donte nag il n'était pas régulier mais par intermittence am na loo xam ne jot nañ ko liggéey abu Diallo ak Crépin nag ñooñu ay déception la ñu loolu la yéenekaay bi di stade wax am na nag juróom benn ci ay joueurs yoo xamee ni la ñu fubal ci coupe du monde mosuñoo dugg ci terrain bi euh, ñu bal même pas cinq secondes euh, mondial 2022 bi nag stade nee na Sénégal euh, huitième de finale la génn si c'est objectif bi bu mu amoon raté na ko te am na tamit ay laaj ci ëllëgëm léegi nag ëllëgëm boobu fédération moo ciy décidé moom ci boppam mu décidé ci donc de manière générale et très ramassée Yacine ce sont là les parutions des journaux du jour. merci beaucoup Birahim Diadji Touré pour des titres yi huit heures moo jot dañuy daal di